asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit ñi mbokki taalibe yi jàng sóoratul fatihi ci ci wax njariñ la mu toll ci ubbi nit ak ko jàng sóoratul fatihi guddi gi njëkk ci weeru koor benn doomu aadama mënu laa wax njariñ la na mu toll ci diggante musal nit ak ubbi ko jàng sóoratul fatihi ci guddi gi njëkk ci weeru koor kenn mënu laa wax njariñal njariñ la nam toll ci diggante ubbiku ak mucc waaleykum salaam wa rahmatullahi taala